Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. nag. champion maa ngi siyaar. nice. sa doomu ndey dafa reeri nee na bu ma la jël tànk tànk ñëwul nee na dafa am lu mu war a egg nekk man. jiili. waaw. jiili nee na célibataire la dañ ko woor reer il faut mu reer ba pare doog a ñëw. ji léegi noonu rek ji ndaanaan nga mais yaa jàmm. maa ngi nga nuyoo mbokk téléspectateurs mbokk yi ñuy seetaan. waaw maa ngi nuyu ñëpp di nuyu góor yàlla yi ay faal yi suñu kilifa yi suñu mag yi suñu mhm. rakk yi ñu ngi nuyu ñëpp di leen nuyu yow. seetaan mhm. seetaan nga maa ngi doon jël gis nga ko ndax seetaan nga xaw tuuti ku la. Djibril Yade léegi Djibril Yade champion boobu nekk euh, voilà Montréal. ok maa ngi koy déglu maa ngi koy déglu. voilà wala voilà. déglu naa ko déglu naa ko. xam naa xam naa après am di benn link parce que am na yu bëri yoo xamante ne euh, di ngeen ci mën a euh, yokk jàppalante quoi yokkute mën na see ci wàllu sport. dëgg la dëgg la dëgg déglu naa kàddoom yi déglu naa. xam aussi tamit rafet na lépp waaw. ñun moom ay jeunes lañu rek du dëgg. Hmm. waaw nekk nekk ci sport bi di di rek. waaw hmm. kon biñu ñu si waxee leneen loo xam ne suñu njariñ la moom. Hmm. dañ koy dañ jëfe jëfee ko quoi. oui koor gi koor gi noo leen koy dundee moment bii koor gi ak euh, entraînement yi nan nga koy dundee jamono ji koor gi ah koor gi ñun dañuy entraîné ñoo ngi entraîné de. ñu ngi entraîné moom ñu ngi entraîné hmm. ñu war a entraîné. d' accord ban période ngeen di entraîné après ndogu wala. waaw après ndogu bi la ñuy entraîné. Mhm. après ndogu bi moom la ñuy entraîné waaw. Siteu Siteu ci ban euh, ban état physique la nekkoon avant bon danaa ñëw ci foofu ah avant avant ñoo arrêté euh, ñuy wax ni sa combat Papa Sow arrêté nañ ko ban état physique la nekkoon. waaw maa maa ngi maintenir sama xamasuma sama état de physique maa ngi koy maintenir maa ngi ci kawam xanaa kay mhm. ñun ay contact ay affaire musculation yooyu moo ñu manqué comprendre waaw mais ñu ñu ngi maintenir si liggéey bi ñu nekkoon rek ci la ñuy sukkandiku ba léegi d'accord d'accord d'accord ma ñëw ma ñëw tuuti si début ah. maa ngi ci doon wax léegi ak jili mhm. mooy wax si nga euh, euh, début bi bi bi ngay dugg ci euh, mbapat yi et tout li nga def ci mbapat moom macha allah pour mu gis koo xamante ne def na ko ci mbapat c'est parce que musta gis nga daanu euh, mbapat donte ne bëree nga fu bëri mbooloo mi aussi ci mbapat man nga ñëw dellu si tuuti début mbapat yeeg affaire yooyu noonu. waaw mbapat moom yàlla dimbale na ma ci quoi man mbapat moom man làmb musum musuma gëm nu ñu gëmee làmb non dama ci nekkoon dama ko. Hmm. rek. waaw dama ko mënoon di koy pratiquer comprendre nga hmm. di bëri si biir koñ bi bu ma gisee ay tournoi yee temps hmm. soo demee géej temps ay géej day am ay tournoi comprendre nga gars yi dañuy bëri xaalis xaalis hmm. ci noonu yàlla gis na chaque jour yàlla def muy dimbali mais du ma dem pour juste rek damay daan wala ma daan non mais dama dem ba yàlla suñu borom comprendre nga moom moom ak ay mbiram quoi d'accord euh, alors bi nga bi nga bëggee dugg ci ci làmb est-ce que bi nangu woon nañu nan la demee nan la demee famille bi est-ce que nangu man nag samay famille dañ ma mës a bàyyi ci li ma bëgg. Hmm. dañ ma mës a supporter ci lépp lu may def ci lu baax. d'accord. yee sama famille moom man samay sama famille sama famille ñëpp mën naa laa sama famille yaay sama famille papa ñëpp ay lañ comprendre nga man dëkk mbër laa laa dëkk man jonwaar laa dëkk. sinafole serele fofma e man séeréer laa man suñ dëkk noonu la demee ñun bëre rek lañ xam xamuñu ñu d' accord d' accord alors euh, ci biir ci biir euh, mbapat yooyu est ce que amoon nga benn adversaire boo xamante ne yaak moom da doon métti xam nga mu nekk gars yi xam nga mu nekk sa benn genre euh, concurrent en quelque sorte nga xamante ne moom it mooy loolu quoi no mbapat nag amul ku ma jaaxaloon ay mbapat yi mbapat moom mbapat moom xanaa xanaa xanaa xanaa xanaa xanaa bi may soog a commencé samay grand frère di may daan ala affaire yooyu comprendre ci ay mais ku ay combat na may nii may bëri samay morom nii non ku tuyal dama lay daan mm-hmm. ye d'accord ye d'accord ok ok mais euh, ci ban période nga nga jël combat bi au nga jël làmb ji au sérieux nga xam ne yow mii làmb ji da nga cee da nga da nga cee war a sérieux da nga cee war a concentré wu nekkatul affaire u foofu mais affaire u gagne-pain la waaw man nag gañ pain non man gagne-pain sax yow taxul ma gëm ne yow war naa mën a nekk mbër dama dama dama dem ba am amur bi dama ko dem bu bëgg ko mu nekk suma cofeel mais mais man bi ma bi ma koy def dafa tombe maa ngi jàng métier man suma métier laa gënoon a man duma ma tardé heure liggéey. d' accord heure bi may jàng ji métier. ndax suñu atelier man maa doon tijji atelier bi man maa doon def lu bari comprend nga. d' accord te man bi may foowee mbapat dafa fekk mu mën ñaw. ah. sama patron jiital ma si atelier bi yëre yëre yi ñëw yi ñu fay ñëw yëpp maa ngi koy dagg man maay teg booy yëpp si yoon comprendre nga. Hmm. kon instant boobu man waruma mën a wàcc yoon damay nekk si ndigal rek comprendre nga. d'accord mais sama temps bopp dama doon dem su ma wàccee ba pare temps bi may war a occuper pour foog samay xarit affaire dama doon dem. dem téere bëmbën di jàng bëre ay ñoom temps suñu grand frère ñu fi nekk ay ñoom Pape Kane ñooñu ñoo ñu jàngal bëre ay ñu ne ñoom fëgg dë ñu ñoo doon fondoo gis naa ko sànq comprendre nga. ñu ñoo nekkoon xam nga expliqué. yee ñu bari woon mais man. dama ko doon def hmm. nii rek dama amoon plaisir bi mun ko. dama amoon plaisir bi quoi. yee mun ko di koy def. mais bi ma demee bi ma demee ba suma patron bi ma jàngal métier. Hmm. yee dañ ko invité wul benn benn mbapat boo xam ne waa marché bi lañ tuddee woon drapeau. d'accord amoon ay commandes yu bari. d'accord mais combat yi bañ ci amee léegi si noonu après man maa waroon a bëri xaw ma quatrième combat xaw ma cinquième combat. Hmm. mais ma daan fa boo xam rek lamp yëpp fay courant coupé. comprendre nga <laughs> waaye dama bëri mbooloo sama booy affaire yooyu comprendre nga xam naa booy ñoo dagg fii boobu bi jaar foofu tas léegi nag ma xëy ci suba si moom yow coow lu bari loolu mu ne ma yow kon yow da bëri kon mbooloo bi yëpp moo toog sa ginnaaw. ku man dama ko rus na ko waa gis na de yooyu yaa ngi dégg d'accord ci ci même boobu noonu mu permettre ma mu ne ma boo liggéeytee ba cinq heures waaw yee na nga bàyyi li ngay def na dem entraînement léegi nag am pardon moom ma gën a yokk courant chaque cinq heures nag léegi man am naa loo xam ne daana ma ko am léegi nag man chaque cinq mm-hmm. damay moom sama bopp léegi nag ma ne noonu sama pardon tax mu bàyyi ma dinaa ci nekk chaque jour quoi mm-hmm. d'accord léegi nag commencé sérieux commencé nekk sama boy mu wax leen même message bi yow affaire bi hmm. commencé nag combat yi d'accord d'accord d'accord mais mais mais Siteu bi ngay nekk xale ndax euh, ci làmb ji est que amoon na benn champion bu mag bu la influencé koo xamante ne da koy xool bëgg a mel ni moom mu nekk benn genre référence wala waaw man nag ñi ma influencé dañoo bari yooyu mais bi si jiitu bi si jiitu bi nekk sama influence bu njëkk mooy sama yaay d'accord ndax man sama yaay yow lépp loo xam ne yëfu njàmbaar rek ma gëm ne ci laako ci war a terale rek yow sama yaay bu ma ko ci xalaatee rek yow damay dem ba mu jeex hmm. yaa mais nag yàlla hmm. daf ma dimbali ma jaar ma jaar ak samay morom yu bari yee ku mel ni ay Cheikh Ibra comprendre nga ay booy yu nekkoon jeg saaw may ànd ak ñoom di fréquenté boobu suñu sama booy nekk sama koñ duñu fréquenté affaire léegi man dama dem di wëri ji hmm. yaa ngi di fréquenté yeneen boo yoo xam ne làmb la ñuy dund comprendre nga hmm. léegi sax si fréquentation boobu noonu damay yow ñooñu dañuy am ay mag yoo xam ne ay mbër lañ ku mel ni papkan papkan dafa jàpp sama lu bari yee ba jóge foofu ay ñoom nees ñëw jëlaat ma yóbbaat ma lamsaar ma fekk fa man kenn rek laa mës gis mu ci bëre koo xamante ne ba sëgee di bëre mu yëm ma ci ñi ma jaar d'accord ñaar sa laa mën a muy Pape Kane ak Nicoréel. ak Nicoréel. waaw Nicoréel eh, waaw. waaw eh, waaw eh, ma trop waaw. Mhm, mhm. ndax nag ñoom bañ ma yéeme bañ ma yéeme dama leen jege. chaque jour may on la ma bëreeg ñoom chaque jour mhm. waaw. d'accord on man. alors yaa ko. yaa ko wax ba ni noonu nga intégré euh, mën naa wax euh, Lansar parce que foofu laa doon ñëw. waaw dugg nga Lansar. dañ ma dàkku. gis ne war na bëre ak man. d' d' accord mu mu taxaw mu taxaw. bu gaay di wax gaay naan moom mooy favori moo dàq bëre mu dàq xeex nga bàyyeeku ko. ñu tase euh, fi nga xamante ne mu koy euh, hôtel ba keroog bi ñuy def face to face bi nga bàyyee ko lépp lu tax. ah ma xam ne moom moom méritoo lépp rek. Ah. moom moom lépp moom liggéey moom moo liggéey ci àdduna am lu tax lu war koo mun a bàyyi ak lépp. d'accord kon ñun li am solo rek tey yow leer nañu leer yàlla bis bis jëf dina jot. Eh, nañ hmm. bàyyi bis boobu rek. d' accord ci yàlla d' accord loolu loolu kese la quoi. Hmm. ñu ñëw deuxième face to mu tàng nag mu daal di tàng ngeen jaay làmb ji laa mën a wax euh, ngeen ngeen ngeen daal ci communiquer laa mën a wax voilà mën nga ñu see ñëw tuuti. non loolu lépp lépp ci moom la rek moom moo yeyoo loolu rek moom nu mu mel rek noonu la affaire bi di mel comprendre nga. Hmm. lépp ci moom la quoi moom nu mu bëgg mu mel rek noonu lay mel waaw loolu yëpp ci moom la comprendre nga dayooram la rek mooy dayooram mooy li ma la wax sànq awuma leen lu ma wax si moom comprendre hmm. may wax si moom rek mooy bis ba jot yàlla suñu borom may ma ndam ci kaw loolu kese laay ñaan yàlla. nga nga nga nga moom ngeen daal di wax affaire yi tàng. est-ce que est-ce que papa newul di di di di la wutal ndëgg sërëx comme comme c'est-à-dire bàyyee la xadar gi affaire yooyu noonu est-ce que du nax est-ce que du piège. non man dépassé naa fi mu mel ne dépassé temps comprendre nga. Mm-hmm. temps boobu yëpp occupé naa sama àdduna quoi comprendre mm-hmm. waaw maa ngi sama yoon maa ngi suivre làmb maa ngi def li war a def. loolu moom. personnellement personnellement bi nga ñëwee bi combat desee tuuti dama doon wax ni Siteu Siteu dafa waroon a yokk poids man man su may su may def samay émission wala may wax ma ne Siteu bi mu jógee MMA dafa ñëw yi xam nga def na cardio gu bëri maa ngi ci doon waxtaan ak Max koy nuyu père Max. mu ne ma am nañu suñu système boo xamante ne euh, bu ñu bëggee mu jël poids donte ne làmb day laajte tuuti nga am tuuti poids affaire yooyu daf ci daf ci am solo parce que man gis naa ni entraînement bi MMA bi cardio bi bari na li ngay bari na xam nga par rapport ak nga xam ne parfois da ngay diis man ma ne Siteu dafa xawoon a wàññeeku période boobu noonu nan ngeen nan nga ko wala yow gisoo loolu personnellement. ah non maa ngi si woon si samay entraînement rek maa ngi woon ak samay course di def li mu war a def comprendre nga. yee te dama doon gëm naa ne yow bu mu sumbee xam nga wala yee képp ku sama supporter di nga kontaan di nga xam ne xam nga wala liggéey naa te aussi ba léegi bàyyiwuma kon yow sa xalaat boobu xëy na yàlla loolu tax yaa yàlla def xamuma la man maa ngi ci ligne boob maa ngi continuer loolu yaa ngi fi. yee xalaat bu rafet na quoi. te aussi tamit dinaa dinaa gën a personne xamuma la gën si nekk. d' accord d' accord d' accord d' accord mu nekk lu ama am solo alors euh, sa copain yi sa doomu ndey ñoom ñoom Mama Lamine affaire yooyu noonu nan ngeen di dundee période yi. di ñoo ngi lay dellu ziar loolu famille la loolu ñun ñëpp ñoo nekk ensemble comprendre hmm. loolu famille la loolu mu ngi mel ni nga wax ajuma wax samedi wax dimanche loolu bis doxul seen diggante comprendre loolu ñun chaque jour làmb ñàkk làmb ñun kese la comprendre nga hmm. bu ñu xale la ba léegi du tey d'accord d'accord ñoom ñëpp nag ñoom ñëpp ñoom ñëpp maa ngi leen di siyaare di leen ñoom ñëpp wallaahi yeah ñenn ñi ñu um, fi quoi mais maa ngi bëggee ñëpp waaw. nga nga waajal ñëpp xam nañu ne làmb ni mu méttee nga waajal ba mu des tuuti ak dépense yi ngeen def lépp ci làmb ji xam nga ñu ne làmb ji aj nañ ko mais noonu ko dundee. ah métti na moom yàlla métti yem quoi comprendre nga. Hmm. yaa ngi dégg. waa ngi ay ay mbirum suñu borom. d' accord d' accord boo nekkee benn jaam nekk taalibe. Hmm. yee di xam lépp nu muy tëddee ci àdduna yàlla moo moo moo sàkk lu ko neex mooy def lu ko neex. yow mënoo lu hmm. dul gëm sant sant. mooy nga kontaan. waaw da ngay kontaan. yaa ngi gis ñoom maama la mi di commentaire. gaa baax gaa yow ñooñu dañ lay seetaan de gaa yow mooy loolu ñoom fu yàq bi nekk samay samay samay samay ñoo far ñoo far ñoo far ñoo far alors fi eh. nga xamante ne moom mooy euh, sa doomu ndey nga xamante ne euh, yàlla def yàlla jëlee na ko fi dan yàlla yërëm moom mbooleem jullit yi fa nekk alors mu nekkoon mu nekkoon euh, lu bette mais lu metti aussi ñu gis ni am njaase bëri na fi bëree waale ko yow nga ñëw sa combat nga ñëw sa combat mu des mu des da nga koy sentir da ngay gis Siteu sentir sentir Fodé présence euh, absence su Fodé absence su Fodé ci Siteu affaire yooyu Abou Ndiassé bëree na ko mu xaw a compliqué yow it nga ñëw mais voilà loolu noonu. mais nag man man man man moom bu ma ko bëree waaloon man mën naa sax lay nit. ndax kooku lumière la si kooku day yokk son pouvoir. Eh, kooku hmm. mënuma sax wax ci moom yaa ngi yaa ngi bëgg a yàq sax émission bi yow ndax kooku yow kooku kenn la kooku kenn ci man kooku kenn hmm. kenn la ci man kenn kenn loo hmm. xamante ne yow dootuma amati lu mel noonu abadan am naa ku nekk ay junni Fodé ngi fi mais kenn du kooku kenn du kooku kooku kenn du moom eh. te eh, mm-hmm. kooku loolu rek la ko yàlla mënoon a def si na kooku walaay kooku lañ doon toog mën na ko yow walaay eh, man dafa mel damay sentir yow kooku sama live di waaw ndax dama xamoon loolu si moom dama ko doon yëg wallaahi e eh, ndax ma ko mm-hmm. ñëwoon taloon ndax xam expliqué nit ku ko gis amul fóodee fóodee dama ko doon nëbb fóodee dañ doon nekk ci benn gàlle du génn mm-hmm. dama koy téye ay quinze jours booy chaque jour dama leen di bàyyi ñuy dox seen soxla mais moom bu hmm. génn moom bu génnee rek man la àndal ndax tellement dafa am benn affaire bu nekk si moom amul ku koy gis te doo ko bëgg amul foo dee moom mën gis nit daraaye ko tooñ ko yow ba nga xaw a jëngatu sax mer mais après fi ngeen di mujjee da ngeen di waayoo ndax waaw ci yërmande rek moom noonu la mel moom yee farce la moom dafa hmm. nekk ni koo xamante ne yow dootuma amati ku mel noonu wallaahi dëgg am naa ku nekk am naa ku nekk am naa ku nekk mais kenn du kooku kon man mm. yàlla rek laa koy ñaanal yee ak nit ñu mm. baax ñi nga xamante ne yow xam nañ ko yee mu ngi seen xol mm. ñu nekk si nit ñu ma koy ñaanal waaw waaw lu ma gëm nag laa lay wax lu ma waaw macha allah macha allah ñu ngi di ñaan yàlla moom nga nga nga nga tàggatoo parce que li ñu jël ci euh, ci sa temps bari na macha allah di la ci remercier bu baax a baax di remercier aussi euh, sa sa encadrement di remercier aussi say xarit aussi di remercier sa mais mm-hmm. aussi di la di di lay jàppale aussi ah parce que aussi yombul comme ni ko waxee ñu bàyyi la ko tàggatoo si ko. waaw non maa ngi sant ñëpp maa ngi sant samay xarit ñëpp mais aussi tamit maa ngi sant sama ñaari xarit yi ñooñu waaw muy Aliou ak léegi si ñooñu you know dañ ma dañ dañ dañ ma dañ ma ma jàppale fole dañ ma taxaw prang mm. mm. waaw mm. Aliou maa ngi koy sant di koy bëggee bu baax wallaahi eh, di sant nag samay xarit waaw te nag bëgg naa nga dugalaat sama xarit Jili Mbacke Jili Mbacke bëgg naa nga dugalaat waaw Jili Jili si man lu bari kooku dañoo dund démb moo tëjee ji bi moo koy tëj Jili waaw non kooku kooku man fanaan suñu kër Jili Mbacke dèjà mu njëkk suñu kër dem fanaan Longo yóbbu ma seen kër ma fanaan foofu seen kër laay njëkk a fanaan. bi ma ñëwee sama maam dafa dafa dafa wax naan ma yow fan nga fanaan ma ne ko ka ñëw ci lii. yow ñun xamuñu maam lan moo tax kon kii ñëw fii fanaan fii. kon ñoom tamit xamuñu loolu comprendre nga. yee mu dem ba nekk public boo xamante ne sama maam bëgg ko walaay. moom depuis ñu nekk. ma yaa jili waaw dama dama doon plané ah yaa jili chorégraphie yi nu muy demee nan ngeen di chorégraphie yi. ñu xam ne dafa naturel ba pare moom moom moom loo ci xamul gauze la de mos naa gis mbër tëggkat bi tëggal mbër ba pare nekk càmmoñ <laughs> moom gauze la. comprendre nga moom gauze la man tamit ma nekk gauze loo ci mën. dara dara nekk ay gaan rek nekk ay seex. ndeysaan sama waay la moom macha allah maa ngi koy nuyu di nuyu famille am ñëpp. Habib ñëpp Balla Seck waaw Habib Seck ñoom ñëpp Segu wallaahi famille ñëpp laay bëggee waaw di kontaan nag di sant ñëpp di gërëm ñëpp. voilà ci ci chorégraphie yi ci chorégraphie yi maa ko doon voilà ci chorégraphie yi tous bi nga nekk koo xamante ne da nga dégg gars yi yàqal ci tous bi mais mais mais a mën a tous boobu noonu fan la fan la jógee fan la jógee. non Malick Malick nag booy bi moo ñuy jox baat yi. Eh, Malick maa ngi siyaar kii moo ñuy jox baax yi jili màgge kii ko yéem <laughs> ngi bëggee bro Malick ak Souley Gaynde moom ñooñu kenn ñoom d'accord yee mais nag kontaan naa kontaan naa trop mais merci beaucoup Siteu merci beaucoup bro merci beaucoup Babi maa ngi bëgg si Babi jaajëf jaajëf Siteu Euh, mu nekkoon ki nga xamante ne moom mooy euh, Siteu mu nekkoon koo xamante ne moom mooy Siteu ñu am mbégte lool jàkkaarloog moom tey.